mbooloo mi toog fii yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ngeen dal ak jàmm seen teewaay fii rafetlu nañ ko lool démb ba tey yàlla def na ñu ngi ciy waxtaan en réunion ak Pape njaay ak ñi nga xam ne ñoo ko séq di leen wax ngeen dal ak jàmm te ngeen boo leen demee ngeen remercier ñu Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne suñu jarbaat la suñu doom la suñu lépp la mais kilifa gu woyof ku baax ku ne ku neex a teeru te yéen wax dëgg yàlla ñi teew fii réer ngeen bés bi. maa ne suñu xool sedd na guy bég nañu. Mhm. ñun mi ngi mel ni course bi am na ba pare. ñu di leen xamal benn affaire rek ñun CNG état bi daf ñu fi teg parce que on de pouvoir pour ñu diriger les courses au Sénégal. ma di leen seedeel ne CNG bi kontaan na ci yéen ñun nag mënuñ daw dawal course yi Sénégal bàyyi Daara Jolof en reste. parce que koo gis fii mu am fas Sénégal rek la mu am fas ba Daara la jóge wala am na fa kóllëre wala am na fa mbokk ñun ñëpp on vient Daara Jolof kon nag daara bu xewlee bësu ñëpp la ñun de CNG engage nañu à côté de Pape Ndiaye pas pour Pape Ndiaye seulement mais pour Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne suñu wëllëre la suñu doom la tey defal nañu loo xam ne bu amee bës kenn du des fi Dakar tout le ak à Daara ma dina xamal ne seen teewaay bi rafetlu nañ ko ñëw bi ngeen ñëw nii incha allah bu dimanche doo leen ko rëccu parce que Dakar kenn du fi des ñëpp danañ ñëw teew ci bés ba. wa présenter suñu sentiment de fidélité à Aly Ngouille Ndiaye jàppale ko ci département ba aussi parce que ñun ñi ñi fi ju bëri daara daara lañ jël kon nag vraiment yéen li ngeen dox nii yàlla na leen ci yàlla may ndam. ci yonent bi Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam gën gi mbindeef dellu sant waajur yi ah man de bu président national toogee. wax au niveau du comité national ah man ma yore CRG Louga di président région ba Daara Jolof di dawal. ñëw ci biir CNG. ànd ak ay député parce que li may wax dama ko vivre. dawal nañ grand prix chef de euh, grand prix président assemblée nationale benn député ñëw ñaar au maximum Jolof xewle ñeent député ñëw fekk ci remise de trophée kooku ku dëkk Jolof war na la bégloo député yi yéen a ma bégloo ni ngeen ma bégale nag yàlla na ko yàlla bégale yàlla na leen ko yàlla béggale Jolof dafa toog juróomi at rafle course ce qui est anormal c'est la zone sylvopastorale par excellence du Sénégal le plus grand ara dans la sous-région Nefi li mu fi produire si fas kenn xamul ni mu toll ñuy dem ba jolof toog ni dañu di dawalatuñ ñu ça c'est pas normal xale yu bare jàngi nañu en Europe boutique yu bare sarsi nañ ko ba mu fees kër yu bare néegu ñax la woon defaraat ko ba mu baax mool ba baax moo juddoo ci biir kër ga ñu jaay ko 4 million cinq million 8 million jolof rek lu mun a xam ne nagu gusera bi gën a rëy boo ko yaree ba mu am 6 ans munoo ko jaay plus de 1 million 500 mille muy mâle muy femelle alors que un produit équin issu du haras de Daara Jolof qui soit demi cent ou trois quarts de cent ou sept huitième jëm kaw facilement nga jaay ko à plus de 4 cinq 6 millions suivant ndey ja ko jur performance yi mu mus a def. mag sant muy ñu defar hippodrome bu Daara. man dafa nekkoon ci li nga xam ni moo doon sama seul objectif en tant que maire sama papa Alioune Sarr bëggoon na ko parce que da bëggoon dolloo njukkal sama papa El Hadj Ibrahima Ndiémé Ndiaye mais yàlla def na am nay jéego yuñ ci dox maa ngi ci njëkk waxtaan ak ministre de sport kër Alingou ci salon bi mi def quinzaine de la femme bi ma dellu see keroog bi ñu ministre de l' intérieur ah, bi ñu nommé Alingou ministre de l' bés bi mu njëkkee toog bureau bi ma duggee dama dugg mu woo Matar Ba nekk sama mag yi ngi sama bureau am na lu mu la waxoon Linguère ba ñu def quinzaine de la femme dama bëgg nga jàppale ko ci projet construction hippodrome de Daara jël bokk na ci projet yi nga xam bi mooy les projet prioritaires du département de Linguère parce que c'est l'hippodrome de Linguère. mënoon nañ cee bokk mais dañu cee boole itam nag li tax mu boole ñu ci. mooy dafa fab son chef de cabinet na ko yëkkatil sa téléphone nga wool ma les honorables députés kon le ministre boole nañu ci ci lan bokk nag mais boolewaat nañu ci kon jërëjëf monsieur le ministre. xam na ne ñu nag moom la ñoo bokk jolof xam na ne ñu nag moom la ñoo bokk li ñu bëgg xam nañu ñu nag moom la ñoo bokk fi ñu jëm kon monsieur le ministre dañ koy ñaanal fam mu bëgg àgg yàlla fa àgg. kon bu ma toogee fii. ah ñu am course bu ñu ko tuddee ma ñëw fi toog en tant que nag bëkku daara di honorable député ma ñu lay saakaane yaay sama xool ma gëmin la bëgg yow fii laa la def ba tax na mbokki téléspectateur de la 2STV ñoo ngi leen di nuyu tey ñoo ngi fii ci Tivaouane muy dëkku El Hadji Malick Sy tey nag ñu ñëw muy quatorzième journée bu comité national de gestion des courses hippiques du Sénégal waaye nag muy première journée bu comité départemental bu Tivaouane ma ànd ak sama caméraman Xaali Ndiaye ñu dugg ci biir wan leen rawante yu neex yi nga xam ne ñoo am tey fii ci hippodrome bu Tivaouane local. taskati xibaar yeeg ni politique na ngeen mooy tuddiyee ay fitna jëmale ko ci askan wi nangalu xale yi ne mag ñi ne fa dañ koy toppatoo Sénégal mooy suñu gaal nañ leen ko jox man ko bu leen ko tuutee lii di sama gaal gi lu mu jaatu lépp day fee mbokki amateurs yi mbokki turfis yi première course bi mooy PTA yi muy poulain de trois ans yi ñu nekk 10 partants war a daw distance sous 1650 m muy prix spécial El Hadji Ndiaye bu Thomas Sankara. numéro 1 Dalincor propriétaire Iba Kole Bao jockey Moussa numéro deux Machallah allah Ndiamé Dieye Fall jockey Fallou Diop numéro 3 Darou Sam propriétaire Matar Niang jockey Mohamed Gadiaga numéro 4 Amine propriétaire Dambao jockey Alassane Seck numéro 5 général Bara propriétaire Modou Diané Diop jockey Oumar Sarr numéro 6 Major propriétaire Mansour Silla jockey Ousmane Diouf numéro 7 Jambar Ji propriétaire professeur Sakhir Diam jockey Boakan numéro 8 Thiono Dourer propriétaire Gaddi Diop jockey Mohamed numéro 9 Awa Bakari propriétaire Khar Diouf jockey Salif Kobar numéro 10 Nour René Bankal jockey Momad Dieye 10 par temps pour une distance de 1650 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque. jóg nañu gàllinkoor door nañ ko mu génn ci biir door nañu gàllinkoor mu génn waaw. gàllinkoor dafa mal tey ñëw na ci kanam gàllinkoor génn na gàllinkoor ñëw na ci kanam macha allah moo nekk ci kanam macha moo nekk ci kanam. macha allah moo nekk ci kanam macha allah moo nekk ci kanam Dalinkoor Dalinkoor moo nekk ci kanam musa Diène moo ko war Dalinkoor moo nekk ci kanam Dalinkoor moo nekk ci kanam joke bi ko war mooy Moussa Diène waaw dawal nañu dawal nañu major dawal nañu major mu ñëw ci kanam major moo ñëw ci kanam ki nga xam ne moo tëj marché bi mooy Amine Amine bu Dambaawo moo tëj marché bi waaw major tey dafa xëy rek tukki major dafa xëy rek génn daal di koor major daal di koor dawal nañu macha allah en troisième position dawal nañu macha allah général Bara macha allah ñëw na seen kaw macha allah ñëw na seen kaw. Dalinkoor génn na bopp bi macha allah génn na macha allah génn na macha allah génn na macha allah génn ci kanam deuxième position Dalinkoor troisième position major dawal nañ général baara dawal nañu général Bara mu ñëw ci tournoi bi ñëw seen kaw général Bara dawal nañ ko mu ñëw seen kaw waaw macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah Dalingkoor général Baara coono du réer macha allah Dalingkoor général Baara coono du réer macha allah Dalingkoor macha allah général Baara coono du réer noonu la rawante bi tëddee fii ci hippodrome bu Tiwaawoon muy course bi nga xam ne moom la reñ réservel poulain de trois ans yi. ñu ne woon dix partants doon daw ci di su mille six cent cinquante mètres xaali Ndiaye. Euh, ñoo ngi fii ak euh, El Hadj Ndiaye borom Thomas Sankara El tey ñoom Pape Matar jiite li nga xam ne mooy comité départemental bi jagleel la course bi nga xam ne mooy PTA yi muy poulain de trois ans yi tey lan nga yëg tey fii nga xam ne moom lañ ñëw muy Tiwaawoon ñu gëj fi dawal ñetti at. merci Amadou vraiment ça me fait plaisir ça me va droit au cœur. dégg nga xale yi bon lu ñuy def sunu satisfaction moom nu façon bu ñu leen ko mën a exprimer xanaa di leen ñaanal yoon wi ñu dugg ñu di sax ci rek ko defee sans borom dana leen dimbali bu neexee yàlla bon course bi nag ni ma ko gisee amélioration moom kenn wéranteetu ko moom waaw léegi daal li ci des mooy classe uk ñoom euh, nu mu tuddati ñoom papis ñang ñi ma seen fii ñoom bibo ñoo toll ci daw vitesse wi ñu mën a daw mag ñi antanun ko na leen mag ñi soutenir rek topp ci seen ginnaaw jiital leen moom laa wax exemple boobu ma wax ci Pape Matar Ba mii nekk président wu Tivaouane moom laay wax au niveau national ñun mag ñi daal nañu leen jàppale ñoom bu ko defee ñun ñun obstacle yi ñu doon jaaxal ñoom dinañ ko mën a jàll bu neexee. ñu ngi fii ak euh, ki nga xam ne mooy Pape Matar di président comité départemental bu Tivaouane toog nañ ñetti at ndawalu ñu Tivaouane tey yàlla dogal nga yor li nga xam ne mooy comité départemental bi ñu dawal tey li nga xam ne mooy seen première journée. ban sentiment nga am tey ci bés bi nga xam ne Tiwaawan gi yëpp génn na dakaar génn Louga génn Thiès génn ñëpp ñëw sagal si la ci sa bés bu rëy bi. vraiment Diallo maa ngi lay ziar maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ah, mbokki amateur yi Sénégal gépp vraiment di am mbégte bu mag tey ci li Tiwaawan organisé xam nga euh, Diallo toujours nee naa bépp turfiste bu ne ci dëkk ba nga nit ñi fekk si la nga dawal sa dëkk dawal ñun ñëpp dañuy xëy di taal suñuy oto départ. dem Daara Jolof dem Thiès dem fu ne pour seetaani fas chaque jour nag doon nan sant Tiwaawan Ndawal tey nag ñu ngi koy sante yàlla ay at a ngi koy lijjanti waaye tey la ko yàlla dogal sant yàlla. troisième course réservée au groupe 3 par partants pour une distance de 2200 mètres prix spécial écurie Maktoum Mouhamadou Lamine Diop numéro 1 Adja Kolle propriétaire Idriss Sagnan, jockey Mohamed Dieye, numéro 2 Arif, propriétaire Idriss Sagnan, jockey Mohamed Gadiaga, numéro 3 Momar, propriétaire Elhadji Nguedi Touré, jockey Oumar Sarr numéro Nogay Diop, propriétaire Samba Koura Diop, jockey Bathie Diop, numéro 5 Abdou Samat, propriétaire Ndiaga Kodou Ndiaye, jockey numéro 6 Bismilay Jàmm propriétaire Mbaye Diène Mbaye jockey Ousmane Diouf numéro 7 Barakatou propriétaire maître Moussa Mbacké jockey Fallou Diop numéro 8 Ñoddi propriétaire Oumar Bao Junior jockey Elie Diop numéro 9 Borom Bagdad propriétaire Ibrahima Ndiaye jockey Djibi Diop numéro 10 Tom propriétaire El Hadji Salif Diène jockey numéro Fatma 2 propriétaire René Bancal jockey Amadou Ba numéro 1 numéro 12 Alhamdou 2 propriétaire Idrissa Niang jockey Sidi Sow numéro 13 Fils Alhamdou propriétaire Mbaye Diène Mbaye jockey Salif Kobar 13 partants distance 2200 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque. mooy course mooy li nga xam ne ñoo am deux def xel ak xalaat. bàyyi dawal 22 par temps ndax box yi ñu am 20 box 20 par temps la war a jël ñu ñaan nag ki nga xam ne mooy président Macky Sall année 2018 bi balaa ñu cee génn ñu teg pose première pierre li nga xam ne mooy hippodrome national ndax ki nga xam ne mooy président Amadou Samba Kane di DG de la loterie nationale sénégalaise xelam ak xalaatam yëpp mooy ñu def ay prise de paris si suñu hippodrome yi ndax fas yi man nañ ko waaye faaw ñu am infrastructure kon président Macky Sall da nga dajal fas ba dugg biir bëgg nañu nga xalaat li nga xam ne moo jëm ci wàllu hippodrome national pour CNG course hippique. Euh, drapeau bu xonq bi waaw euh, drapeau bu vert validé nañu ko Abdou samat Abdou Samad Abdou moo nekk ci kanam. Abdou Samad génn na ci kanam numéro 10 bi mooy Tom Tom Tom moo nekk waaw Abdou moo nekk ci kanam Abdou Samad moo nekk ci kanam Abdou Samad moo nekk ci kanam Abdou Samad Abdou Samad ñoddi ñëw na ñoddi ñëw na deuxième peloton de tête bi Arif moo fa nekk premier peloton ba ñoom ñëpp dawal nañu ci tournal bi ñoom ñëpp dawal nañu ci tournal bi dawal nañu ñoom ñëpp dawal nañu ci tournal bi waaw Abdou Samad dig na Abdou Samad dig na Abdou Samad nekk na en deuxième position Abdou Samad Abdou Samad ñëwaat na ci kanam Abdou Samad ñëwaat na ci kanam tey dafa daw vitesse numéro 8 bi numéro 8 mooy ñoddi ñoddi moo nekk ci aras bi ñoddi ñoddi ñoo di ñoo di Abdou Samad waaw dawal nañu Adja Collé dawal nañu Adja Collé Arif mi ngi ci deuxième peloton bi Adja Collé ñëw na Adja Collé ñëw na Abdou Samad bàyyi na Abdou Samad na Abdou fuug nañ ko dawal nañu dawal nañu Adja Collé ñoo di Adja Collé ñoo di Adja Adja Collé génn na Adja Collé génn na ñoo di waaye da waaw Adja Collé moo génn ci kanam Adja Collé moo génn ci kanam Adja Collé moo génn ci kanam Adja Collé Fall Adja Collé premier numéro 1 Adja Collé deuxième numéro 8 troisième numéro 13 numéro 13 Fils Alhamdou troisième numéro 13 fils alhamdu Adja Kole Fall wane ne na mooy favori ci groupe 3 bi ndax bii mooy douzième participation mi nga xam ne moom mooy cinq réalisation Adja Kole Fall mi ngi bokk écurie écurie Adja Cuuc bu Idriss Sagnan fas la boo xam ne nañ ko bàyyi xel ndax jël na deuxième ci grand prix chef de l' état fële nga xam ne mooy ces Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar quatrième course réservé au groupe 2, 10 partants, distance 2200 mètres. Prix spécial des élus du département de Tivaouane. Numéro 1, Choro. Propriétaire Ali Chao, jockey Mohamedou Bamba Ndiaye. Numéro 2, Ndeifal. 3. Propriétaire Samba Koura Diop, jockey Mohamed Numéro 3, Propriétaire Ibra Jockey Amadou Gueye numéro 4 Dardas propriétaire Abdou Khadir Mbaye jockey Ngagne Dieng numéro Nasrullah propriétaire Ndioba Seck jockey Mohamed Gadiaga numéro 6 Monsieur Diop propriétaire Cheikh Omar Tidiane Niane Junior jockey Momad numéro 7 Rasoul propriétaire Aliou Ley jockey Ousmane Ka numéro Big Boss propriétaire Hassan Azar jockey Pape Ning numéro 9 Ngërëm propriétaire Ngagne Silla joke Ousmane Diouf numéro 10 Mbar Ngone propriétaire Moustapha Hachem jockey Fallou Diop 10 partants distance 2200 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque 10 partant lañu ay jockey yi nga xam ne ñooy war ay jockey professionnel lañu léegi rek yëfi leer ñu xam kan mooy jiitu ci kanam ak kan moo ci topp baaxul waa validé nañ ko validé baax na drapeau vert bi jóg nañu dóor nañu Dardas mu génn ci kanam Dardas moo génn ci kanam Dardas moo génn ci kanam waaye ki nga xam ne mooy euh, ki nga xam ne moom mooy Big Boss ñëw na Dardas Big Boss ak Coro Dardas Big Boss ak Coro Moussa Diop ñëw na mu ngi daw ci ligne bi Moussa Diop a ngi daw ci ligne bi Moussa Diop ñëw na ci kaw Dardas Moussa Diop mo Dieye moo ko war Big Boss moo nekk en troisième position Big Boss moo nekk en troisième position Senna Woli Bari Senna Woli Bari Woli Bari mi ngi ci biir peloton bi Woli Bari mi ngi ci poloton bi Woli Bari mi ngi ci peloton bi dawal Big Boss ci aras bi dawal nañu big boss ci aras bi dawal nañu big boss ci aras bi dardas monsieur Diop big boss dardas monsieur Diop big boos dawal nañu mbaar ngoone dawal nañu mbaar ngoone dawal nañu mbaar ngoone dawal nañu mbaar ngoone waaye dardas a nekk ci kanam ba tey dardas mène le mbaar ngoone ñëw na waaye dardas bañ na dardas dafa mel ni dafa lonkal Dardas bañ na Dardas bañ na Dardas bañ na Dardas bañ na Dardas bañ na Dardas bañ na Dardas bañ na Dardas a nekk ci kanam ba tey Dardas a nekk ci kanam ba tey Dardas Moussa Diop Dardas Moussa Diop Dardas Moussa Diop Dardas Moussa Diop Premier, numéro 4, Dardas. Deuxième, Moussé Diop. Troisième, numéro 5, Nasrullah. Quatrième, Ngerem. Troisième, Nasrullah. Quatrième, Ngerem. waaw Dardas fi mu nekk nii Papa Diaye dafa lonkal Dardas dafa lonkal fi ñu toll nii Dardas bi mooy ñetteelu réalisation mu am ko fas la boo xam ne ki ko préparé mooy Abdou Khader Mbaye waaye gis nañ ne Dardas fi mu nekk nii dafa lonkal ndax am na trois réalisations bi saison bi ubbee ak léegi moo leen raw grand prix de la première dame raw leen prix spécial bu Mamadou Moulaye Gueye maire de Diamniadio tey mu raw leen li nga xam ne mooy course bi nga xam ne moom ngeen tuddee élus locaux yi département bu Tivaouane nan nga jàngatee façon nga xam ne mooy Dardas. wax nga dëgg Amadou Diallo xam nga Dardas doomu acteur jeunesse loo la acteur jeunesse loo nekk doomu Monson. waaye yaayam doom fly to Mars la nga xam ne Dardas sept huitième de cent la raw dafa leen raw lu nga leen raw ñëw cees mu répété ñëw Tivaouane mu gën ba teg si Amadou Diallo. waaw kooku mooy Papa Diadia di reporter bu mag dëkk fii ci Tivaouane. waaw ñii bu ñu dawee ba pare xaali dañuy xool ndax poulain de deux ans yi dinañ mënu daw waaw xamaguñu ndax fi mu ne nii guddi na xam naa ne bu ñu deewee réunion suba 15 heures dinañ ci waxtaan xool yan solution la ñuy jël. parce que il faut ñu wàññi ko ndax dafa bëri ay apprenti jockey yoo xam ne dañuy war ci catégorie boobu ñu def ko 15 partants mooy tane parce que risque yi ci nekk dafa bëri loolu président Cheikh Niang proposé woon na ko lundi ba le passé ci réunion bi ñu génn waaye dañ ko war a appliquer bàyyi ay vingt chevaux ay vingt 22 chevaux ndax ay fasu tàggat lañu dañuy jàng daw. waaw drapeau bu xonq bi drapeau bu xonq bi moo nekk ci kaw. waaw xam nga Daaru Xuddoos moom la ñuy jàpp comme favori ndax moo ëpp lu mu raw waaye Medina am na benn premier ginnaaw Medina ak Daaru Xuddoos fii kenn amu fi premier Daare Salaam bii mooy troisième participation waaw baax na baax na Altaay moo génn ci kanam Tayiru Diallo moo ko war Altaay very good Altaay very good Darda Daaru Xuddoos moo des ci départ bi Daaru Xuddoos moo des ci départ bi mooy favori bi moo am trois premiers Altaay jox na leen cinq longueurs Altaay jox na leen cinq longueurs ki nga xam ne moom mooy Daaru Xuddoos moo jógul moo des ci box yi moo des ci box yi Daaru Xuddoos waaye Altaay fi mu nekk nii mi ngi yokk distance bi jox na leen six longueurs Medina Medina Medina very good Medina Burakh very good mairie Alfat waaw gars yi wàññi nañ distance bi deuxième poloton bi Alfat Alfat Burakh alfaat buraax Alfat Burakh tasul yaakaar moo jiital fas yi Altaay Altaay a nekk ci kanam jockey bi ko war mooy mooy Tahirou Diallo waaw Medina deuxième position Medina Medina Alfat Altay waaw dawal nañu fi mu nekk nii dawal nañu dawal nañu Medina génn na Medina génn na Alfat Alfat Alfat ak Medina Alfat ak Medina Medina génn na. Médina génn na Médina génn na wax Mirwax ñëw na seen kaw Mirwax ñëw na seen kaw Mirwax ñëw na seen kaw Médina moo tafu ci ligne bi moo yor casaque vert blanc bi Médina moo nekk ci kanam Médina moo nekk ci kanam Médina Médina moo nekk ci kanam Médina moo nekk ci kanam Médina moo nekk ci kanam Médina Bourax Médina Bourax Médina Bourax Médina Bourax Médina Bourax premier Miroir deuxième Médina troisième Alfat ay troisième Kalfat quatrième Bourax dafa fital Médina ci tableau bi waaw Miroir dafa fital ki nga xam ne mooy Médina ci tableau bi Miroir dafa fital ki nga xam ne mooy Médina ci tableau bi Miroir tey raw na fi nga xam ne mooy dëkkam Ahmed Assane Sy moo moom façon nga xam ne mooy Wirox moo raw tey moo fital Medina ci poto bi mbokki amateurs yi mbokki tisfir si lii lañ leen jëleloon hippodrome municipal bu Tivaouane muy quatorzième journée bu calendrier bu comité national de gestion des courses hippiques gis ngeen ñi nga xam ne mooy euh, trois ans yi macha allah moo raw boo ñëwee nag ci groupe 1 bi diggante Mirwax ak Medina xam naa ne daal tax na suuf waaye li ma gis daal Mirwax laa gis mu jiitu mbokki amateurs yi mbokki turfis yi seen émission au ñoo ngi leen di jox dox daje yeneen i émission di ziar nag ki nga xam ne mooy xalif général euh, des Tidianes muy sëñ mbay Sy Mansour ñoo ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ñoo ngi leen di ñaanal jàmm di leen wax nag seen émission au galop moo leen ñëwloon fii ci Tivaouane ñu ànd ak nag suñu caméraman boobu nga xam ne mooy Xaali Ndiaye